maa ngi leen di nuyu di leen sant di jiital si nuyoo bi kilifa diine yi kilifa aada yi te di leen sant lool te di leen wax ne que fan yi soxla nañ leen bu baax a baax ndax dëkk yi wax dëgg yàlla ne fii jaxasoo na lool di am mbégte waaye tamit di am euh, tiis métit mbégte bi mooy saa yu nu wootee saa yu nu nekkee si jafe-jafe saa yu nu amee ay problème ngeen def ko seen problème ngeen def ko seen jafe-jafe moo tax yëpp si demee ba diis sax tey mujj oyof ndaxte daanaka mun naa ne yaa ngi gën sonn kon leen ngi jaajëfal bu baax a baax euh, am na nag tiis ndaxte suñ sañoon euh, ñu ngi suñu liggéey yéen tamit yéen ngi yéen ngi si seen yitte mais euh, dañu teg ab injustice injustice mun naa ne pour la troisième fois si ñaari at Euh, ñu couper suñu signal tubaab yi nag dana am lu ñuy wax une fois ça passe deux fois ça lasse trois fois nag ça casse bi ñu ko nekkee def deux mille vingt et un mars deux mille vingt et un woote woon si euh, porté woon plainte ñun jàpp ne ñooy si état de droit nañ bàyyi ñu fi liggéey événement marqué mu amee février deux mille vingt trois bi ñu daal di woote si daal di porter au niveau de la cour suprême ba février ba léegi cour suprême enrôlé wu si dossier maanaam joxagul benn date ne bis sàngam ñoo leen ngeen plaidé plaidé dossier bi suñu waxee ñu ne ah le temps de judiciaire n'est pas le temps médiatique mais le temps judiciaire des gens ordinaires n'est pas le temps médiatique mais le temps judiciaire politique est plus rapide que le temps médiatique lu tax na tey si diggante bii nii bi ñu déposé suñu ak léegi ak politicien tey am na jafe-jafe ak beneen politicien ñu daal di ko teg daan ñu dem appel ñu tegaat ko daan amaat na jafe-jafe ak benn jigéen ñu teg ko daan ba léegi ñuy dem en appel kon si diggante bi am na ay procès te ba léegi ñun suñu procès bi ñu déposé woon ba léegi kenn euh, kii yóbbu ko planifié wu ko. Euh, bi yoon injustice mënul weesu lii luñ dal semaine bi passé ndaxte événement xew na man mii nekkoon naa si plateau keppaar bi daal di def analyse en tant que en tant avocat bi ko defee si saa si ñu daal di coupé suñu ba léegi xamuñu kan moo ko coupé ak lu tax mu coupé ko bi mu laajee Babacar Diagne si saa dafa ne moom il n'est pas derrière que su fekkoon moom la dina woote dina def mise en demeure mais bi yoon du moom euh, ñu laajtee xool feneen ñoom ñëpp ku si nekk comme ni si nekk daanaka patate chaude euh, bi ñu lan moo xew ban kan moo la wax dagg sama signal mu ne ab lettre ministre de communication mooy. Euh, Bokar Thiam waaw moo ko ne mu couper suñu signal pour message mensonger et subversif maanaam état bi dafa jàpp ne li nga doon wax du dëgg te tamit day yee fitna man nag ci keppaar bi defoon naa émission li ma wax ñaari def la benn bi mooy euh, le droit n'a pas été dit la politique a été dite lu tax mu ne le droit n'a pas été dit ndaxte mbirum viol mbirum agression sexuelle Euh, il faut déjà nga wane conjonction sexuelle maanaam jaxasoo am te loolu waxu ndaw seet la dana donc ba amul lenn luy wane ne conjonction sexuelle am loolu moo tax ne le droit n'a pas été dit la politique nag a été dite ndaxte gis nañ ministre de la justice bi ne acquittement amul si dossier bi te en tant que professeur de droit tey si wàllum crime maanaam su la tegu benn date si wàllum crime loolu tu es acquitté mooy différence ak relax relax si wàllum délit la ñuy wax relax fii nag kii di kenn condamné wu ko si wàllum crime maanaam viol ak menace de mort donc acquitté nañ ko loolu mooy dëgg mais tey su demee ba taxaw ne kenn acquitté wu ko loolu day wane li ñu wax mooy que la politique a été faite c'est pas le droit ñaareel bi mooy kii di Pape Ndiaye depuis trois mois ñoo koy ñoo koy tëj kaso te Pape Ndiaye li mu wax mooy daa ay magistrats yu d'accord si ñu yóbbu dossier si chambre criminelle te l'histoire tey lui a donné raison parce que effectivement décision bi génn semaine bi passée euh, compétence su chambre criminelle donte mën na requalifier mais décision boobu noonu tey mooy wane effectivement li Pape Ndiaye wax dëgg la chambre correctionnelle moo jugé mais fii nii amuloon benn charge suffisante pour yóbbu ko chambre donc tey je pense que encore une fois ñoo ngi woote libération ñoo ngi woote tamit indemnisation depuis trois mois te ñoo ngi woote sànq honoré ko parce que li mu wax tey wane na que c'est un journaliste d'investigation que li muy wax xam na ko et fu leer la ko donc euh, loolu laa bëggoon beneen point bi mooy gis naa si réseaux sociaux yi ñu bëri ne ah wàccu de mooy wa euh, Touba Moundé. man damay ne war fu ku ma amul ndey bàyyi la tamit parce que tey suñu bàyyi nekkatu fi te moom moo nekkoon suñu avocat moom moo doon défendre tey njaboot bi que benn euh, mu jur ak bi ko jur tey nag euh, li xew mooy si lami ñes waxoon na ko ndaxte ne woon na politiciens yi laata ñu yéeg pouvoir ay démocrate maanaam dañuy ñëw jëli askan bi wante nag suñ demee ba am li ñu bëgg doy nañ dictateur lii xew coupure signal bi te joxuñu benn notification te article cent quatre-vingt-douze si bi ñu sukkandiku ci code de la presse dafa ne il faut ñu notifier écrite motiver jox ko responsable entreprise bi te loolu ba léegi amul kon loolu noonu tey moo ñu may ñu tey dem gisi suñu juge des référés wax ko mu lever suspension kon ba léegi tey injustice bi nu am nii mun naa am fenn la jaay doole dëgg la euh, ba am na lu ñuy faral di wax waa état bi wane ne que ñoom si jaay doole la nekk muy force reste à la loi force reste à la loi nag wax dëgg yàlla la loi c'est une fiction invention bu nit la ndaxte bu njëkk ba philosophie li ñu doon wax mooy état de nature. ñu dem ba gis ne que ku mel ni Hobbes dafa ne woon l'homme est un loup pour gis ne que il faut ñu créer li ñuy wax la loi pour mun a aar ñëpp mais tey nag li gis mooy la loi n'est plus là pour protéger ñoom li ñuy yëkkati mooy la force pour de la force naa l'homme est un loup pour l'homme dama ne l'état est tey force bi ñuy wax su waxantee dëgg fan yi passé du sax le mais pour man force bi c'est les sans voix baadoolo yi nga xamante ne génn leen ne non trop c'est trop non à l'injustice non à lu mu tëdd di euh, jaay xeex ko donc loolu noonu tey mooy wane ne que euh, Sénégalais yi lii euh, daan am nangutu ko te ñun ñëpp nag li ñu bëgg mooy liggéey parce que wóolu Walfadjri tey c'est un rôle qui est essentiel tey mooy. gii di askan wi wax leen li am les enjeux tamit participer à la démocratie du Sénégal te li am mooy dëkk bi euh, état bi ñi amee pouvoir tey dañu mépriser dañu tuuti askanu Sénégal des sans voix lu tax wax loolu mais képp kuy yëkkati di xeexal askan wi kenn état bi bu ko rendre mu ko hommage su ko delloo mu ko njukkal si Lamine Niass day tey mat juróomi at bi mu génnee àdduna bi mu génnee àdduna ñu bëri doon leen wax ne que maison de la presse ko euh, nañ ko ko tuddee te may fàttali moom moo njëkk joxe teg euh, première pierre si maison de la presse mais état bi dafa loolu euh, en deux mille vingt jëm si yàlla Babacar Touré mu génnee àdduna te ku baax ku ku militant tegul vingt quatre heures daal di ko jox maison de daal di tuddee fan yi passé tamit gis nañ ko jëm si yàlla Mame Less Savané mu génnee même pas 24 heures la presse tuddee ko ko te ñoom ñëpp mérité nañ ñoom ñëpp baax leen xam naa ne baax baax mais dama ne si la ñu pas moins méritant mais tey le vrai problème mooy le vrai problème mooy tout état bi da lay jàppee la ñu ñes ëllëg benn bi Macky Sall ak état bi ko musal rendre hommage loolu mooy dëgg képp kuy rendre état bu la faale état bi jàpp ne que la hommage sax ay appel à l'insurrection wala leneen kon encore une fois il faut que injustice ñu tegg ko nag ñun lii nii ça nous ça nous porte euh, man sama papa dafa si man yàgg dafa si man xam-xam mais nag wax dëgg yàlla jàngalu ma luxus xaalis ñun dañu amee entreprise ay charges amee ay dépenses. chaque mois bi ma ñëwee bees charge Walfadjri yi xëy na ay vingt millions la par mois tey ñoo ngi à près de soixante millions multiplié par trois te loolu moo tax ba léegi duñ jàppoon personnel il faut ñu mettre à l'aise il faut que ñu maintenir leen fii nii démission yi licenciement yëpp amul ginnaaw yàlla wax dëgg yàlla ndax yu ñu teg dans de bonnes conditions xëy na tamit mais nag wax dëgg Euh, à l'impossible nul n'est tenu moo tax tey danañ décision déposer naa sànq benn note de service personnel bi ma a leen ko mooy des récents événements ont provoqué des conséquences néfastes sur la bonne marche de notre activité avec la coupure sans délai de notre signal TV ce qui ne sera pas sans conséquence sur le personnel qui doit se afin de sortir de cette impasse tout le personnel du groupe Walfadjri est d'ores et déjà mis au chômage technique et des licenciements collectifs suivront pour la survie de l'entreprise maanaam fi mu ne nii comme que amatuñu su gagne-pain dañu ko xañ faaw ñu répercuter ko tamit ci suñuy charge moo tax personnel lu Walfadjri yëpp tey teg na leen chômage technique mooy weer bi su deewee xamuñu fu leen di fayee ndaxte bàyyi ñu liggéey suñu mayoon liggéey du am mu problème depuis ñetti at ñu suñu am problème ñaareel bi tamit kenn du liggéeyaloo nit si zéro moo tax it ne licenciement collectif tamit moo si topp fi mu ne nii daal li ñu bëgg ñoom état mooy Walfadjri tëj ñun nag dinañ def le tout ba Walfadjri du tëj mais nag. beneen tey nee naa sànq déclaration de guerre la ñun tamit on va pas attendre l'autre jour fi ne nii. activité état activité gouvernement lépp ngeen ko boycotté parce que li ñu jàppoon mooy li ñu jàppoon mooy si état de droit ñuy liggéey ñuy jël seen euh, meeting di leen diffuser te wax dëgg yàlla bu fekk ñu woon waxaare lu mel ni état maanaam opposition ñooy doon tey mais nag mu accepter pour que mu euh, fi ne nii nag mooy topp la. mooy topp la. ngeen dem ba jeex du leen maye ci dara nen ne Walfadjri daa jàng nangu naa nen ne Walfadjri poson ko la nangu naa. tey mu ngi à la croisée man de waxoon naa ko 19 mars bi passé fii naa góob mooy élection 2024 ndaxte état léegi dafa nekk si te am na ñetti bomb yuy ñëw suñu kanam mun naa sax wax ne ay bomb atomique la bi si njëkk tey mooy arrestation wu Sonko ndaxte gis nañ condamnation bi li mu Sénégal tey suñu demee ba di ko arrêté di ko yóbbu kaso ah gëm naa ne dëkk bi daal du nekk ci si jàmm. ñaareel mooy ñaareel bi mooy inéligibilité Sonko loolu tamit nee naa jaamu du am ndaxte tey sondage yëpp li muy wane mooy Ousmane Sonko mooy le favori mu nekk cinquième président de la République. ma ne sondage naa ko moom la président am moom la ambassadeur am sondage yi wane na ci gañ au premier mooy bien sûr troisième candidature loolu Sénégalais yi duñ ko nangu bu conseil constitutionnel ñeenteel bomb bi sax mooy tey ñu dem ba ñu tëj Walfadjri léegi naa leen chômage technique man li ma bëgg mooy ñu bàyyi ma liggéey ma liggéey su ma bàyyi ma liggéey nag ma seetaan leen fi mu ne nii daal su bëggee tëj Walfadjri ngay jël responsable seen responsabilité may jeexalee rek si Zola affaire bénéfice yu tegee injustice citoyen français boobu noonu dafa jeexalee texam ne la vérité est en marche et rien ne l'arrêtera man nag ma ne la révolution est en marche et rien ne l'arrêtera